am loo xam ne li tax xayru amu ko. ci ñaari ci benn misaal. ci benn misaal. yonent yàlla Muhammad mooy xayru xalqillaahi kullihim. yonent yàlla Muhammad mooy xayru xalqillaahi kullihim. moo gën ci mbooleem mbindeef yàlla yëpp. moo gën ci mbooleem mbindeef yàlla yëpp. waaye fu mu toogaan seytaane ñëw toog. waaye fu mu toogaan seytaane ñëw toog. fu mu jaar iblis jaar foofu. fu mu jaar iblis jaar foofu. yenn saa yi sax day mbëkkanteeg moom ci jumaa ji. yenn saa yi ñu mbëkkante ñoom ñaar ci jumaa ji. bis tase nañ ci yoonu jàkk ji. bis tase nañ ci yoonu jàkk ji. mu ne ko yàllaa ma yónni pour nga laaj. mu ne ko yàllaa ma yónni pour nga laaj ma. kon yonent da Iblis daf ko daan ñëwal. kon yonent Iblis daf ko daan ñëwal. bun Xataab. Seydina Omar bun Xataab. moom fu mu jaaraan Iblis du fa jaar. moom fu mu jaar Iblis du fa jaar. léegi na kon ndax yonent bi Seydina Omar moom moo ko gën. ndax yonent bi Seydina Omar a ko gën. déedéet gënu ko. gënu ko. kii fadlu lañ ko jox. kii fadlu lañ ko jox. muy Seydina Omar. muy Seydina Omar. ngëneel la gu ko yàlla defal. ci loola ngëneel la gu ko yàlla defal ca loola. waaye nag yonent yàlla Muhammad moo ko gën. waaye yonent yàlla Muhammad moo ko gën foofu. kon lii mooy diggante fadlu ak xayru. kon lii mooy diggante fadlu ak xayru. Serigne Diagne ñu ngi jégalu. Serigne Diagne ñu ngi jégalu. waaye borom kër gi muy Kéba nga ñaanal. kër gi di Kéba nga ko yàlla. ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ziar ñëpp waaw beneen bi mooy waa Wildaan. beneen bi mooy waa Wildaan. Wildaan Wildaanu Ndaween. seen programme bi yaakaar jàpp nañ ko. seen programme bi jàpp nañ ko. muy le 18. muy le 18. en ah, novembre. le 18 novembre. waaw lañ ko jàpp. lañ ko jàpp. defar nañ nag ay carte barkeelu. nañ ay carte barkeelu. mbokki taalibe yëpp nañ ci barkeelu. mbokki nañ ci barkeelu. ku nekk lu mu am mu ciy ci ngi gërëm Seydi Yaxya ci taxawaayam ci xabru bi rafet na gërëm nañ ko yal na yàlla barkeel yal na yàlla yëkkati sa mboolem mbir yal na yàlla yëkkati sa mboolem mbir ci zaahir ak ci baatin barke Bañes barke Cheikh Tidiane barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim